ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di am mbégte bu baax Babacar dalal la fii di nuyu askan yëpp ñuy seetaan ak ñuy déglu di tàmbali suñu nuyu ak suñu tënd ak suñu siyaar jëmee ko ci xalifa général mu Serigne Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi loolu te wéral ko di ndokkal mbooleem mbokk yëpp ci weeru kooru tedd wi di ñaanal ñëpp kooru jàmm te ñaan lépp lu ñu si jaamu yàlla sama borom may nga def lancement bu mucc ayib hôtel King Fat Palace avec de personnalités hors pair avec un monde aussi fu jóge partout au Sénégal xanaa loolu da nga koo préparé pendant des mois ou bien. waaw maa ngi sant yàlla bu baax rek loolu nga gis lépp Serigne Touba la du lu may waaj waajuma ko si lu mat une semaine ginnaaw bi nga xamante ni am naa si ndigul kilifa gi. ci laa nag ni dina woote fi nga xamante ni mooy King Fahd Palace ngir laa si mouvement bi sant waa Touba département Mbacké waa Sénégal gépp parce que région yëpp ndey déplacé wu na ñëw sant mboolem activité acteur politique yëpp yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci kujj gi te ñëwoon wusuñu ku si mel ni waa euh, Yewwi Askan Wi te Khalifa Sall ak Ousmane nekk si bopp bi ak Déthié Fall ñoom ak ñi nga xam mooy Habib Sy euh, ñoom ñëpp ñëw nañu Euh, di nuyu bu baax aussi tamit waa wàllu Sénégal bi nga xamante ni président Abdoulaye Wade yónnee woon a délégation ak maître Abdoulaye Wade Sall ji ñëwoon ak Famara Senghor ak Mame Diarra Fam nuyu tamit aussi yi nga xam mooy waa gëm sa bopp te buggaan ngay daal teewaloon leen ndax bu ma wootee àdduna wuy si ma Sénégal wuy si ma day wan ka ñun taxawaay bi ñu taxaw mooy taxawaay bi ñu war taxaw si kanamu askan wi boo jëlee tey kilifa diin yëpp ñëw nañu Touba Tiwaawoon Njaasaan Ceneba leew na ñoom ñëpp ñëw teew si wane ne seen doom moo woote di nuyu aussi tamit gére yi nga xamante ni mooy ku si mel ni Alaaji Mansour Mbaye nga xamante ni ku ne xam na ni amatul jot waaye mu ne Cheikh Abdou Bara Dolly ni mu toll ci réew mi bu wootee fu ma man di fekk dinaa déplacé wu pour ñëw ba ñëpp xam ni kii li mu nekk lu dëgg la tu la lu jar a jàppale la kooku yaakaar naa ni bëriwut a am kon maa ngi koy sant bu baax di ko ñaan yàlla dolli ko wér di ñaan la aussi Ablaye Mbaye Pekh bi nga xamante ne vraiment moom tamit si ak ñi nga xam ñoo organisé woon yëpp. voilà motivation wu nekkal fi askan wi ndax da ngay maanaam euh, ni Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mais saa nii mënul topp si ginnaaw kenn comme ni ko rahmatulahi taala doon waxee Cheikh Ablaye Dieye dama am bëjjën ginnaaw xajuma si ginnaaw kenn tey jii ndax da nga bëgg demal sa bopp sa sa yoonu bopp waaw yàlla mooy dogal kenn ku nekk heure boo xamante ni lu muy def leen lu lu muy rek day fekk mu neex yàlla man dama nekkoon ci parti àndoonoo nit ñuy xeex benn lenn muy Macky Sall dem nañ ba si biir gis nañ ni kan àndoon di xeex Macky Sall jigéen na Macky Sall loolu rek la du leneen amuñu benn problème man ak moom parce que euh, man mënuma comprendre li nga bañoon daaw muy 2018 nga nangu ko 2022 li nga xamante doon nga ko xeex ñu déggut kenn déggatu la nga xeex yow mi nekk si parti bi di xeex amul la benn motivation bu ñu jàppale pour nga mën a xeex kon bu fekkee loolu am na nag te yàlla di yàlla ñëpp te nit ku nekk nag ñaan jàng jàngan boo mokkaloo ber sa daara. loolu c'est yu nu mën a yu nu mën teg loxo. ay faits ndax xam na yoo xamante ni ay faits ndax li ma lay wax mooy euh, bu fekkente ne président Pape Diop mi ma àndoon dañ ko woon 2018 ma teew ñu ko dañ lay décorer mu gànt ko 2018 ngir lim doon dem élection présidentielle 2019. ñu dem 2019 2020 2021 2022 ñëw ñu woowaat ko ni ko dañ lay décorer mu doog a ñëw pale nangu ak ni ko wax si télé wala si rajo kon loolu moom la ñu gëm en tout cas suñu ginnaaw passé yoo xam suñu avenir yemul 2024 ànd ak gor ay nawle fenn fu nekk maanaam ñu bokk ci mouvement bi muy ci ak bitim réew la ñuy ànd nag pour samp liñ samp mu mouvement boo xamante ni dana wute lool ak mouvement yeneen yi. mais lu lay def nga woote ñu gis un parterre de personnalité politique ñi gën a mag man Sonko xalifa Sall Déthié Fall ak euh, ñeneen ak ñeneen ak ñeneen communicateurs yi famille religieuse yi sañ sëñ Mountakha yabale Cheikh Bassirou yabale mbooloo mi ñëw wut si la. loolu day firndeel nii fi nga jëm xam nga ko am nga confiance ndax daa fa am lu la dee moo tax nga nga am fitu taxawal lu ni mel ba pare nag défier défier sa ancien collaborateur bi nekkoon bokk waaw ki ma déy mooy sëñ Touba mooy sëñ Muntaxa moo ne ma Cheikh Abdou am nga ci ndigal demal da nga ci am ndam loolu ko suñ Touba wax jërëtu ngay ragal te loolu sëñ Touba ma ko ba pare jël doom yónni fa muy sëñ Moustapha ñëpp gis ko te sëriñ mun mos sa yónni ci lu mel noonu mais mu xam ni man doomam laa taalibeem laa xew la naa yónnee na ñëw na li mu ki mu yónni jëmmam la ànd ak sañ mun sañ mun taxaa mi ngi ko tuddee moom sëñ Bés Dieng kilifa din yëpp teew kooku day wan ne rek taxawaay bi nga xamante ni moom la mu sëriñ mun taxaa teg taxawoon bi mu yóbbu Darou Mouhty Salam jàngal ma yar ma xam na ni man mii du ma koo xam ne damay war askan wi moom moom laa àndal loolu moo tax tey li gis si man opposition bi nga xam ñooy opposition radicale bi ñu jàpp maanaam ñooy taxaw si wetu askan wi ñoom tamit ñëw wuy si ma ndax xam na ni bu ma nekkoon di càmbal càmbali wala yor ñaari tànk wala di wax di weddi yaakaar naa ku fa woo ñooñu doo leen fi gis ndax ñooñu gëw ma ne daan dox si ay caaxaan loolu moo tax que man ma leen di sant di leen gërëm rawat nag Ousmane Sonko mi nga xamante ni dafa def déplacement ndax Ziguinchor la nekkoon ku ne xam ne liggéey boo ko ne bu maanaam bu métti bu maanaam boo xam moo nekk moo moo nekk mais mu bàyyi yitteem yëpp jël avion ñëw uniquement pour maanaam fekk si lancement bi kooku vraiment mënu ma ko fay mais dafay delloo naar bi xoromam ndax mois de mars bi mu tax taxawee mel na man ko sant Mbàkke ginnaaw Cheikh Abdou mi nga xam moom mooy Cheikh Abdou euh, bu suñ Cheikh Hadi ñun kenn kenn ëppaloon si loo génn pour pour jàpp si combat bi te combat bi nu xeete yàlla may ñu si ndam ndax ñun lañu waxoon mooy dafa am complot dafa am maanaam euh, ay euh, ay loo xam ne ko bëgg faagaagal duñ ko tuumal du dëgg ñuy xeex si loolu ba kilifa yëpp xam ni ñun li ñuy xeex dëgg ndax kenn duñu gis wala ñu dégg si loo xamante ni du dëgg tey ji yàlla may ñu ndam ndax ku ne xam na ni li nga xamante ñoo ko doon komplo mi ngi feeñ ndànk-ndànk léegi bu ñu ñëwee si mouvement nekkal fi askan wi seen projet da ngeen ko teg wala ngeen maanaam calqué ko si euh, jàngale tuba Touba taxawaayam gis naa nga xaw ko wax noonu liggéey jàmm yàlla waaye tamit bokk na si tamit fexe ba askan wi ñëpp jariñu si li réew li génn si réew mi tey bu ñu ko mënoon tojal rek en deux secondes en cinq secondes. waaw bi na ko toj mooy dañuy ñun ay doomu daara lan dañuy ñëw indi lu bees lu bees ci politique bi mais beesul si diine ndax Serigne Touba njàngaleem ñett la dafa wax ne liy yorum réew mooy dangay am xam-xam da ngay nangoo liggéey dangay ngay gëm yàlla mooy xikma. loolu mooy ñett yi nga xamante ni bu ko nit amee kooku jar na dénk loolu moo tax nag bi nu xamee ne ñun ñett yooyu yëpp Serigne Touba dogal na jàpp na ne mu ngi si ñun moo tax ñu samp moment bi pour suuxat ko jëmbat ko si loolu di ko nantale nag li nga xam mooy ndigalu sëriñ bi ak ñaanam loolu moo tax garab bi mu joddoo bi mu jubba muy mouvement bi mu am ay tànk tàmbalee dox ba bokk si course bi ndax mouvement boo xam ne juddu nga amugoo vert matal parrainage am caution opposition bi yëpp di la euh, tàllal loxo kooku yaakaar ne leen sëñ Tuubaa mais du man loolu moo lay wan ni la ñi ngi si loolu beneen bi mooy dafa am ay symbole yoo xamante ne moo tënk mouvement bi mm-hmm. benn bi mooy paix maanaam ku ne xam na ni picc bu weex jàmm lay fi ci fi mooy logo bi son bi maanaam proximité lay doon maanaam yoo xamante ni ak yokkute lay doon boo xoolee giri bi jàmm lay jàmm lay aussi tamit moom lay woote ak ak dal dal lay woote maanaam moom lay moom lay wane maanaam giri bi dal lay wane boo xoolee gub bi mooy wan ko ni maanaam askan wi dugub dañ leen a war maanaam di bay di dunde ndax ko ne xam na ni Macky Sall bi mu fi nekkee dafa waxoon ni dañu maanaam attendre autosuffisance alimentaire 2017 la mu waxoon dara amu si ba 2022 li ñuy jëggaani si dund 2012 sax jëggaani lu toll noonu kon ñun programme yooyu lañ jël tënk ko suñu logo teg ko suñu yoon wane ni kat ñun lii mooy suñu programme incha allah fan yii si kanam da gis maanaam programme mouvement bi ginnaaw boo xam ne déposé si ICT ci ministère de l'intérieur ba am ko boo xam élection législative jàll nag su boobaa wala élection présidentielle ñëw ñu mën ko def parti nag boo xamante dañuy dem lépp loo xamante ay jogante la. yu ñuy wax xaw nga ci PDS. gubbi ak jaune bi ak yooyu est que xawoo laal seen couleur. waaw xam nga Ablaye Wade moom mooy sama baay boo jëlee si dara si moom da ngay barkeelu rek <laughs> waaw loolu laa gis rek. voilà léegi bu ñu ñëwee si mouvement bi ñu gis ni PDS mi ngi yaakaar mooy waa wàllu yi waaye yeewi ñu ngi yaakaar tey foo jëm. fi ma jëm mooy fi askan wi jëm rek laa jëm te li si kanam réew li ba ndax askan wi ñoom comme li ma wax àndum nawle mouvement new la. boo ko tënkee new googu àndum nawle la da waxtaan ñi nga war a waxtaanal. laaj si kilifa orientation bu ñu la jox bi gën ci askan wi nga def boobu. ñu ngi toog nag ñu ngi si consultation yi. mais am na ay proposition yu bëri. am na ay proposition am na si kenn ku ma proposé bi pour def ma troisième position c'est la waaye man sama jëmm kese taxul man may man may li am solo rek mooy euh, bi ma waxee tamit damay damay wax ak sama waa mouvement en tout cas ñi nga wax kenn ku nekk contacté nga ma am na ñu si war rencontré incha allah demee voilà bu ñu paree nag daan xam maanaam fii ak semaine bi jeex daa dana xam fan na jëm incha allah. wax ni sëñ bi dafa dew làqatu ji parce que daan xam na ni PDS kim na àndal mënatul dara te moom bu demee moom kase du mën a am dara léegi nag dafa visé yeewi gars yi loolu lañ wax est ce que loolu réellement mooy loolu. waaw xam nga man yeewu man visé wu ma dara ndax man du ma koy wuti man dañ may wut si parce que comment lu doo gagné élection locale bokkul élection législative loolu moom lu wér la bu ñu naagu mukk defe ni la leen gagné la woon l'école li man la leen gagné législatif bu ñu naagu loolu ñàkk ànd ak wallu moo tax wallu gañewul bu ma àndoon ak wallu kon ñoom duñ gañe ndax li ma am bu ko bu ko bu fekkonte ne tey nekk na ma ak wallu ñooy ëppale foofu noonu yeewi majorité loolu nag ba tey mi ngi fi ba fi may wax a yow mi ngi fi ndax waa wallu googu noonu contacté nan ma pour ma ñëw bokk ci seen liste te bu ma duggoon seen liste départemental wala ma jiitu ko maay gagné département parce que Abdoulaye Wade ba tey nit ñi bëgg nañ ko mais pour nga am leadership ma taxaw pour defendre programme Abdoulaye Wade dafa jafe amu ko wax dëgg yàlla te aussi li ñuy def ñun ci social ak ci wetu askan wi ak li ñuy defendre sëriñ bi ak li nga xam moom la ñuy wax amul fi kenn koo xamante nekk nga si homme politique muy bokk si ko def loolu moo tax ñun li ñu am xam nañu ko xam nañ suñu bopp suñu procès kenn duñu ko mën a yàqal amul maanaam divertissement yoo xam ne wala koo xamante ne xëy na da nga dem bu Cheikh Abdou ñëwee dana nangu sama poste parce que doole nag kenn ku nekk xam nga ki la man loolu moo tax ñenn ñi nga xamante ne xëy na dañ leen di yebal ñu nekk naan Cheikh dafa bëgg a dem fi wala Cheikh dafa bëgg a dem fi mais man ña nga xamante ni man bu ma doon waxal ñoom laay waxal ñu ne si kaw ñoom ñooy samay naw la mais du caayin ni ñi nga xamante ay militant la wala ñu nekk si ressources bëri ñoom laay waxal si loolu fépp foo xamante ni sama mouvement bi neen ma ma dem foofu te muy fu gën si askan ma am si ndigal foofu laay dem li ci kanam nag réewu li bat te aussi man du ma sacrifier sama bopp wala may sacrifier ñu ma àndal. mais euh, sax xëy na xëy na fi nga dëkk waaye nag sa dimension weesu na ko. waaw mais lu si man daam rek loolu waxtaan lay doon rek. xam nga aussi man bu fekkente nekk naa koo xam ne c'est national ndax euh, boo yoree mouvement boo xamante ni partout dans le monde installé nañ fa ndax Argentine tey seen seen seen secteur mat na euh, boo demee France am nañ fa nga dem Italie am nan fa nga dem Belgique am nañ fa nga dem Canada am nañ fa nga dem États-Unis d'Amérique muy Cincinnati ak New York ak Saint-Louis Missouri foofu nekk am na fa représentant nga jóge fa ñëw Afrique nga am Gabon am Mali am Côte d'Ivoire am Gambie am Gabon yaakaar naa ne léegi nga dajal boo demee ci euh, ci Sénégal ni nga ko waxee nga dem ba Matam padoor Linguère Kaolack Thiès dakaar fii Louga fenn fu nekk nga am fa yaakaar naa ni mouvement boobu noonu nekkul mouvement xan te ñu li ñuy def mooy du ko teg ci lu leer kuy adhéré dafa am foo xam ne fa ngay dugg pour nga adhéré joxe say données ba jox fi nga nekk nga adhéré carte yi génn na dañuy jaay carte comme ni ñu ko waxee suñu parrainage parce que mat na suñu caution mat na du ñu ànd ak nag koo xamante ni ànduloo ak askan wi parce que ñun dañoo wax ne ñun opposition radicale lan mais opposition radicale mooy koo xam da nga nekk si wetu askan wi li Macky Sall yi def mu yàqal lu réew mi ak di caxat caxatee euh, li nga xam mooy suñ suuf si ak ñàkk gi ñàkk war me kilifa diine yi opposition yooyu la ñuy àndal pour liñ bëgg benn objectif la. mooy 2022 ñu am majorité Assemblée nationale 2024 ñu baara Macky Sall ku mu fi teg ñu fexe ba kooku du am nam ñun loolu monsieur Moussa képp koo xamante ni xam na ne bu ñu ànd yow loolu dañu ko atteindre loolu la la ñu àndal ndax bu dee Cheikh Abdou Bara Dolly kese man bu ma amee sama parrainage ma matal ko ma am sama caution mais xam naa Macky Sall caay caayam. parce que bu ko neexee ban naa dépose lépp ba pare mu baaroon par national dama ko yàqal ensemble national comme que man dama fa toogal sëñ Tuubaa si kaw pirjin bi di wax la njëkk tàmbale mooy jërëjëf Seex Ahmadu Bamba ñaanal Sëriñ Muntaxa ma yàgg fi te wér neexul Macky Sall neexul waa ensemble national kooku nag danañ fexe galgal ba nga xamante ne du amati kenn ku ñëw ensemble du tudd sëñ Touba ndax ña fay demaat wala ña fa nekk ku dul man amu fit def loolu noonu te loolu sëñ Touba moo ko may léegi nag bu fekkente ne xam naa loolu damay seet ñi nga xam jàpp na ne bu ñu àndee ma jox leen sama parrainage jox leen sama caution ñu ànd ci àndum le man làqatuuma si ginnaaw kenn parce que ku may àndal àndum naw laay ànd yow kon ñooñu di wax loolu bu leen yebalee na seen xel dal ñi leen yebal xam ne man du ma xëccoo ñoom man dama ñëw pour dolli leen waaye duma leen wàññ